financé actuellement parce que euh, dafa am euh, li nga xamante ne ni moo di euh, jaar-jaar ak yoon ba tax na rek tey bu ñu ko defee tête de mën nañ ko fa jaaralee ngir rek mu bañ a bokk ci liste yooyu noonu la moo ci sa xalaat yow Tom 21. waaw mais loolu soxna si amul polémique ndax bat ñoom li ñuy jàpp si seen xel ni dafa war a tënk bat dañ ko war a jàpp ci seen xel ni moo war a tënk Ousmane Sonko. Hmm. Ousmane Sonko fi mu jaar ba wara a dem voter ci élection yi weesu fa la bat jaar rek voter hmm. ndax bat élection yi wote na wala wotewul ah hmm. Ousmane Sonko voté na wala wul Ousmane Sonko il a été condamné 6 mois de source ak amende 200 millions par diffamation bu mu diffamé ki nga xamné moy mooy Mame Niang ñu tek ko ci digg penc bi ne ko da nga fénal ki kàcc nga fen nga da nga koy fay deux cent millions teewul daa voté ji yaa ngi fàttaliku bi ñu defee xawma seen recours boobu recours boobu yóbbu woon ko Ziguinchor ci juge juge euh, sàmba si mm-hmm. bi ñu dikkee fi nga xam ne mooy tribunal bu dakaar mais dañ koo jël daan ne leen atte bi kee atte nii ñu ko attee baaxul mm-hmm. ba ba ñu woon nañu dugal Ousmane sonk ci liste yi mais verdict boobu tribunal bu Dakar da ko kase teewul Ousmane Sonko voté ji na teg ba léegi nii kenn réintégré wu ko dugal ko ci biir euh, euh, fichier électoral bi est-ce que xam nga ne fichier électoral bi ci élection anticipée yi mais dañ koo tëj décret moo ko war a tijji moo tax ministre d'intérieur bi taxaw daat ni euh, li nga xam mooy fichier bi kenn du ko tijji amul réviser euh, fiche électorale manam anticiper la ñi voté woon ci élection présidentielle yi ñi bindu won rek ñooñ ñoy voté ji mhm. wa mais légui lan lu bess lañ fi wara mëna def ba wara mëna mën a ki nga xam moy mooy Barthélémy kon bat daf ñi wax naan éligible dañoo xamul lañ dem gëstu jiwaat wala boo ko bëggee da ngay comparer situation Barthélémy Dias mom moy situation Ousmane Sonko. est-ce que situation yi bokk na aussi. c'est la même chose Ousmane Sonko gëna pire. Ousmane Sonko dañ ko condamné ci Adji Sar 2 ans de prison lañ ko tejj par compte max lan mo tax te degul kasso bobu ba paré condamnation définitive bi ci ci mambay ña wàcc na kon léegi mom lan lañu bëgg ku ma am nday ak ku ma amul nday wala def doole dictature pure moy lan force ni batri Dias du man nañ ko nak ñom parce que def nañ ko ci ministère yi ñepp tok di xol nit ku am droit de voyage ak droit ak droit de revenu. am droit génn sa réew dem ci beneen réew. tey nga xëy xëy dem di génn ñu ni la ah monsieur le ministre yow kat dañ ne boo bul génn nga laajte notification ñu lay lakk ay daadaa nga bëgg jàmm daal di génn wàññeekuwaat dem sa kër. daa di toog waaye léegi Sénégal gépp di seetaan loolu ñoom bu leen neexee ñu ni waxuma la Barthélémy Dias sax bu leen neexee ñu ni Macky sax du nekk tête bu leen neexee sax ñu éliminer liste APR. maa la xamaloon mais bu leen neexee teg seen argument éliminer liste APR ndax ñoom bu ñoo bu ñu sañoon ñoom rek ñooy dem jogante waaye nag réew mii mhm. ma leen di xamal rek dinañ leeral ni Sénégal gii ku foog ni mën nga fee installer li nga xam ne mooy dictature yaa ngi nax sa bopp ndax sénégalais yi ñu ndax ñi ngi xool niveau euh, opinion nationale et internationale ñëpp ñi ngi xool parce que ñëpp Sénégal léegi ki liir bi juddu tey sax xam na ni Sénégal di doxee mhm. mais nag bëgg calqué ay Barthélémy Dias ni dañ ko bëgg a lolu mom bu yeboo ñu jël ko teg ci suuf. Mm-hmm. sen lanceur d'alerte yi nak ak seen i chroniqueurs yi nga xam saison des menteurs mentologues lañu ñoñu ñoy wër di créer ay situation pour lan influencer li nga xam mom moy conseil constitutionnel. Mm-hmm. mais conseil constitutionnel bi buñu ñu fàtte ni ñoom Macky Sall mo defoon décret ñom ñu kase décret bi. Mm-hmm. dal ni kat président nañ ko doxalee ni président ànd ceeg ñom kon japp naa man wóolu len ndax xam naa ne Ousmane Sonko ak ay manipulation waru leen a manipuler fi nak lañuy ñuy xam ni conseil constitutionnel bi vous êtes radical yéen ay da ngeen am seen indépendant wala amul seen indépendant ndax ci Macky Sall nag wane woon ngeen sen indépendant bu mu leer nañ mais nak fi nak lañ koy xamé Barthélemy Diaz éligible na parce que voté na ci élection yi ni turam mi ngi ci fichier électoral bi Ousmane Sonko turam nekkul ci fichier électoral ndax il a été radié Ousmane Sonko a été radié moo di ay euh, kaddu tome 221 Abdou Nguer li nga xamante ne nii moo di euh, euh, choix wu waa sàmm sa kaddu jël ki nga xamante ne nii moo di Barth def ko tête de mu xaw a jur ay jeexi jaax ci bopp yenn ci sénégalais ndax nee nañ ki nga xamante ne nii moo di Barthélémy Dias dafa am kii dafa am problème ak yoon donc du mën a bokk ci yi nga xamante ne moo di liste yi. waaw loolu waxu chroniqueur du projet yi la ñi nga xam ne ñooy jàppale projet bi mais Bartak Songo moom ñoo bokk kaa moom problème bu dee problème casier judiciaire ñoo ko bokkule bu dee ci fichier bi Bart moom euh, rajé wuñ ko ci fichier électoral bi Sonko nag rajé woon nañ ko nee nañ dugalaat nañ ko mais Bart kenn mosu koo rajé. Mhm. voilà loolu mooy problème fekkoon nañ koo rajé man nañ nekk kanda mais nag Bart moom dëgg la condamné nañ ko définitivement mais mhm. rajé wuñ ko te problème condamnation Euh, conseil constitutionnel ñaare daawu ci kale candidat Macky Sall modification yi mu defoon ci code électoral bi moo tax ñi condamné woon ñu génne leen ci fichier bi mm. ndax même Karim Wade bi ñu ko condamné am na ku njëkkoon a si génn ne Karim Wade ba tey pertul ay droit mais après bi ñu modifié code électoral bi moo mm. Khalifa ci lañ perte seeni droit civique mm-hmm. na Khalifa perte seen waaw foofu moom mais Barth mi ngi ci biir fichier bi Sonko voté na Barth voté na. waaw ah. Barth ak Sonko moom boole naar la naan wala boole tuur. c'est-à-dire ñaar ñëpp wala nga boole ñaar ñëpp. Mhm. mais ñoom euh, euh, ci lu jëm ci euh, côté Ousmane Sonko mën nañ ni li nga xamante ne moom lañ ko doon toppee mu di problème ak Mame Mbaye Niang ak problème am ak Adji Sarr mën ñoom mën nañ xalaat ni dañ ko boole ci loi d'amnistie bi nga xamante ne président Macky Sall defoon na ko. non ci yëfu Adji Sarr bokku ni ci la. ñoom xanaa xamoo ñoom dañoo jël amnistie bi teg ko nii li leen ci arrangé la ñuy jël comme ñu tegal la ceeb rek lu yi nga bëgg. Mhm. nga ne bii laay lekk du ma lekk bi ñoom lool lañ jàppee amnistie te Sonko warul bonifisi wu ci amnistie nak, bu dee gor la la wax. Hmm. budé dee gor moy daw ci mom lu ko amnistie may dako wara délo hmm. ndax néna mom bugul néna andu na àndu ci. Hmm. ay député ne nañ andu ci wa passif ne nañ ñu ci kon bu ñu ñëwee bay laytoo amnistie rek ya problème. ñu ci and parce que ay nit ñoo jaay seen deret donte dañoo seen sax du mel dañ ko jaay ndax mom seen bakkan ndax mom warna jurus ñoñu parce que man limay wax problème sonko bi mom ku ci takk won genn ne mom ngay xéxal ba dé da nga foy sa bakkan ku ci gennon nak par accident ñu faat la lolu accident la yalla xamna num lay lijeenté waye nga genn dem naan da ngay jihatal nit ko xamne ne bakkanam mo tax nga koy jihatal nga faatu yow sa bakkan yow da nga foowee c'est-à-dire da ngaa loturi sa bakkan koku man awuma ci yow ben affaire mom mm-hmm. nak mo wara am affaire ci ñooñu mm-hmm. deug la na bakkanam ndax man ba perte ko légui na na na def lu tout mm-hmm. naa def le tout pour bañ koo gàcceel fa mu tëdd. ndax am na ñoom ne bu ñu leen fëggee ci bàmmeel ne leen ah Sonko ma ngeen doon xeexal kat la taxoon ngeen koy xeexal ma ngi koy def ma ngay jàpp ne ñooy tëj saa raison. Mhm. léegi loolu nu ngeen koy lijjantee gàcce dina leen dina leen xaw sonal foofu. kon moom moo waroon a fexe ba. yaakaar bi ñu amoon ci moom donte nit ku wér du ko yaakaar waaye yaakaar ba ñu amoon ci moom mu góorgóorlu ci. Mhm. takku ci xar ci tànk tubayam parce que bu jëlee amnistie bi rek war na leen. bu laalee amnistie bi war na leen parce que moom mu ngi bénéficié wu léegi ñu néew yi ci lan la ñu bénéficié wu après léegi ñoom mënuñu ñëwaat. Mhm. kon waru ko laal. amnistie loo xam ne la moom da ko war a dindi daar daar même bu ko jaree sax moom mu dellu ci kaso bi. mais amnistie mënu ko dindi parce que moo ko tax mu génn prison. kon bénéficié na ci. Ah, bénéficié wu na ci bu baax loi bi moo leen génne kon war na kon nag nañ d'accord ne war nañu lotori seen bakkan moom war na leen ndax moom moo taxoon ñu lotori. mais moom moo sàkku amnistie bi tamit. nga ne dañ ko amnistie est-ce que moo ko sàkku président Macky Sall moom moo ñoom ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko sàkkoog seeni nit hmm. pour ñu defar leen ko président Macky Sall amutoon dara lu mu ciy gagné loolu moo waral protocole bi xam nga président Macky Sall amutoon lu muy lu muy lu muy gagné ci amnistie bi hmm. dama lay wax président Macky Sall maanaam am fu mu teg Sénégal moo tax mu def amnistie fexe ñoom élection yi normal mais Macky Sall la mu gënoon a capable mënoon na jël réew mi jox ko ñeneen munon na leen a réew mi bu gaaw a gaaw. d'accord d'accord mënoon na koo ba ñi ci kasso bi lañuy dess des ñamu yakal réew mi li jënd seen problème ñom té li ñom ñoo la gëna a xam li may wax defuñu Macky Sall annoncé nako sax nee nañ suñu suñu réglé wul def yefi nit dina am force organisée yo xam ne bu ñu jëlee pouvoir bi yeen di nga xam lepp dëgg la mais nit ñun defuñu. Hmm. te ta nako def mënoon na kep élection yi forcé dëkk bi yëngatu mu yàqale nguur gi. jël avion de tir dem yoonam ñam ko yàkkal dinañ gérer ginnaawam gérer ko ginnaawam réglé wuyu yi teg leen ci code bañ normal def ay réforme joxaat joxe réew mi nit ñi tegaat ko ci yoon te kuy perte ña ca kaso baay perte moo tax Sonko il a dit man ak jomaay mii suñu waxtaanul woon keneen bu ñëwee day eggale liggéey bi tëj ma fukki at tëj jomaay fukki at moo ko wax. Mm-hmm. man waxaluma ko ko. Mm-hmm. lu fi indi fukki at. dafa rafet njort naan fukki at ngiiru dund la fa naroon tëdd. muy rafet njort naan fukki at xam na ni ñoom liñ fi def mois de mars mhm. bu dutoon ak Macky Sall ak njàmbaaram ak bañ mi am nu mu def mhm. wallahi xasim ñoom pare nañ ci génn jant bi moom bu leen tiimatee kuur lañ mom ndax ña ko defoon ci yeneen réew yooyu yëpp moom kenn ci mhm. na fi daana am fan la nañ ko ziyaare ji la nañ ba meel ba ña ko ci yeneen réew yi parce que ñun xam nañ Poutine Poutine mii ñuy jël di ko di ko di ko di ko tàgg ak ñoom di ko kañ. Eh. nañ xool dëkkam. Kagame mii ñuy tagg ak a kañ nañ xool dëkkam yëf yi waga yii ñu doon def temps Macky Sall kenn du ko nangu amul kenn du ko nangu ci benn réew Sénégal rek ko ko nangu. Mm-hmm. kon ñoom nag Macky Sall moom amel nañ ko njukkal amel nañ ko jaaraama ndax amnistie bi pour ñoom la du pour man du pour yow du pour Aana. talu ñu ñu du pour tom amul kenn ci kuñ gis benn vidéo nga yàq alal askan bi amul kenn ku ñun kuñ gis benn vidéo boo xam ne dañ ci gis ngay def nako sudul noonu kon kon ñun taxu ñoo jóg ñaat ñamu tax a kay mooy wëyu yi newoon ci mbedd mi di taal alali jàmbur di yàq yi fi jàmbur ñooñ ñoo ko moom alors léegi nag nañ ko gedd bu leen neexee mais bu ci bénéficier woo ci élection yi de ah lu leen waxal nag ñoom la ko mënuñu ko mënuñu ko ndax dégg naa fi jomaay naan kii sama jarbaat la amadou mareem tàntaam la man mbir mi xaw ma kañ lañ fi wut ay tàntaak ay bàjjen man affaire jaaxal na ma kaso neexul nag. incha <laughs> allah ku dugg kaso wuti bàjjen. <laughs> na dellusiwaat ci yow léegi léegi ana eh, donc bu ñu euh, sukkandikoo ci euh, conseil constitutionnel ndax yaakaar nga ni tey euh, kii Barthélémy Dias dina nekk.